képp ku ñu tànn rek jëmm ma tax bu sonn ak jëm bu sonn ak jëmm ñun ñëpp ñoom ñëpp a yem kon Sëriñ Tuubaa la ñuy tànn mi ñuy tànn nag kon xamul dul moom lépp loo xam ne jumla ngir bëgg a gà gàttal mbiram la doo ko mën sax ndax sëriñ bi moom mbiram waa Samsu Roda Abouha fil ufqi taaliatun am laa yaraa dawaha man laysa saa dafa mel ne jantu digg njolloor ko dugg waaye nag yóbbu na ay fi wàllu wàllu ay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 ñu tooñ sëriñam buy fayu tàggoo loolu nag buñ ci duggee bu yàggee alaasi la ñu ci mbir bu fekkee fu ñu la tooñee rek a fay soof waaye nag nit bu dee seetaan ñu di ko tooñ bu tooñ bu ëppee buy fay lu ko lu ko tey rawatina ci mbiru Sëriñ kon nag loolu mooy tuñ ko kenn képp ko defati ku ne lu la ci fekk lu ne xam ne yaa ko teg soow ndax murid yi kat mën nañoo mu doon ndax li tuur kenn duñ gaar waru kenn buñ dégg kenn te waxtu bu nekk ñu ngi yëkkati ay kàddu leen ko wax ñu di ko ngir jëm Sëriñ Tuubaa loolu nag ñu ngi ko seqal nañ ko xam bu baax a baax te xam ne yaakaari moo doon kenn bu kaf gi si